askan bi def nañ commande de presse euh, li ko waral nag mooy Ousmane Sonko moom ma tudd euh, dañ ko convoqué pour déglu ko ci li nga xamante ni mooy plainte bi nga xamante ni juddu woon na euh, bu ma juumul janvier wala février 2021 ko doon toppee wala ñu ko doon jiñ viol Ousmane Sonko war a wuyu ji mais bon tey ji nag moo def actualité est-ce mën nga revenir ci conférence de presse bi nga xamante ni leader yeewi askan bi def nañ ko laata sax ñi ñëw ci bu Ousmane Sonko li ma ci got a gis mooy Moussa Tine ak Aïda Mbodj wax nañu donc euh, li ñuy ci doon wax yëpp mooy par rapport ak convocation bi convocation bi nekk na loo xamante ni tey jii leaderu euh, Yewwi Askan Wi yëpp dañoo taxaw mooy la conférence di leaders taxaw pour waxtaanee loolu nga xamante ni moom moo war a am ëllëg ndax gis nañu kii di Déthié moom tournée européenne yi mu doon def yëpp da koo mujjee suspendre pour ñëw euh, jege si Ousmane Sonko ngir taxawu ni mu ko waxee xaritam ak naka noonu ñoom Khalifa Babacar ñoom ñëpp ñu ngi woon euh, ci ci ci waxtaan conférence boobu leen mm. euh, liñ ci mën a jàpp nag bokk na ci ñoom euh, Moussa Tine nee nañu euh, li mu nekk ni daal gis nañu ni convocation la boo xamante ni euh, gisuñu nag lan moo fi waral ndax il faut le dire am na benn dispositif bu imposant dispositif sécuritaire boo xamante ni am na ci mbeddu Dakar surtout côté tribunal tey ji nag mu xaw a jaaxal ñu bëri ci askan bi parce que dañ naan bu fekkee audition rek la sur fond ana lan moo fi jar sécurité dispositif sécuritaire boobu yëpp ñu jël ko ndax bëri na fi ay responsable politique yoo xamante ni doon nañ leen o pour ñu dem wuy ji également ñu ànd ak seen ay ñooñ euh, la ñuy gis ci li nga xamante ni moom mooy dossier bi ndax mi ngi ci woon nemmeeku tuuram mais nemmeeku tuur bi dañuy gis euh, en retour que convoqué nañ ko mais convocation bi moom ay li mu wax nee na depuis euh, ba mu nekkee député ba tey la ñuy gis ni daal ñi acharnement bi du jeex ci du jeex ci ci kaw Ousmane Sonko ba muy tëkkale télé sax naan ba muy wax ba muy ba Ousmane Sonko di def déclaration dafa ne doomam boobu nga xam ne mi ngi toog ak moom mu ni ko li ma la yéene laa yéene kii donc du coup euh, tey jii moom bokkoon na ci femmes yi nga xamante dañ doon xeex lii nga xamante ni moo di les violences faites aux femmes genre viol et tout mais tey jii le de la médaille la ñu gis moom ci ay kàddoom ba tey revers de la médaille bi mooy nan dañ doon condamné a ce qu'on criminalise le viol bu fekkee loolu am nañ ko tey dal boobu boobule de euh, maanaam euh, accusation yi ñuy teg ko ci kaw Ousmane Sonko du accusation yu avéré moo tax nag mu ni le revers de la médaille ndax tey jii ci combat bi mu jëloon pour combattre violence faite aux femmes surtout les femmes victimes de viole tey jii ñu gis seen benn ñooñ bu ñu accusé de viol te dañu wax ni ñoom ci dossier boobu accusation yooyu yëpp c'est des accusations fallacieuses donc mu ni nag yéenewu ko sax doomam yi nga xamante ni moom la jur mu nekk euh, dossier boo xamante ni tey ji mën nañu ne attention Sénégal bi yëpp ak même au niveau international ñëpp la intéressé parce que quoi qu'on puisse dire Ousmane Sonko aussi il est leader de l'opposition qu'on ou non nekk na koo xamante tey jii boo waxee opposition bi moom moo ci taxaw comme numéro un da ngay gis ci yenn quotidien yi sax loolu la ñuy bind le numéro un euh, de la l'opposant numéro l'adversaire numéro un de de la République moom la ñu convoqué mu di dossier boo xamante ni c'est normal que mu am tension bi ndax gis nañu depuis lors ñii nga xamante ni ay manifestations de soutien la ak ñi nga xamante ni ce des inconditionnels de Ousmane Sonko et tout ce dispositif euh, sécuritaire bi aussi li ko waral gis nañu li fi xewoon état aussi day jël toutes les dispositions qu'il faut pour non seulement nee nañu il est le garant de la sécurité aussi bien des des citoyens que de leurs biens donc c'est tout à fait normal aussi ci beneen côté bi ñu jël dispositif bi mais liñ ciy ñaan ak di sàkku rek mooy comme audition la sur le fond du dossier on espère simplement que dina dem and ak ay avocat am ñu déglu ko mu delluwaat jàmm jàmm rek xew ci réewum Sénégal parce que euh, soxlawuñu fi mu nekk benn mm-hmm. fitna bu ci jóg mm-hmm. Euh, Georges Nesta maa ngi doon teewluwaale sax kàddu yi nga xamante Ousmane Sonko mi ngi ko koy yëkkati jamono jii nii mais li ci ëpp solo euh, mooy que nee na lii lu mu yàqamti woon la que euh, mbir bu ordinaire la dañ koy convoqué pour déglu ko te moom depuis 18 mois mi ngi mi ngi doon sàkk loolu pour ñu déglu ko ci li nga xamante ni mooy fond dossier bi que xel yi daal que jàmm ak salaam mooy am dinañ ko convoqué ji convoqué nañ ko dina dem wuy ji si jàmm ak bu ñibbee dina dem këram fanaane ji semaine prochaine mu reprendre li nga xamante ni mooy nemmeeku waaw euh, Pape Matar je crois que dossier bi dafa dafa xaw a yàgg parce que depuis euh, nu ñu ko rappelé léegi si depuis décembre mm. deux mille vingt et je crois alors depuis lors on en parle mënatoo def benn jour euh, mënoo ubbi benn réseau social mënoo dem si benn journal depuis quelque temps nga def une semaine boo xam ne doo gis ñu wax si Ousmane Sonko Adji Sarr pour une affaire boo xam ne euh, dañ fay dañuy juger yi ne ay affaires yu ni mel au tribunal du ma wax ne tous les jours mais au moins chaque chaque mois di nga dégg affaire de viol boo xam ne mu ngi euh, am na tribunal donc juge nañ ko maintenant c'est vrai que Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui c'est le leader de l'opposition loolu kenn weddiwu ko am na mbooloo bu takk bu nekk si ginnaawam aussi euh, te du du duñu ay euh, militant alimentaire maanaam duñu ay militant yoo xam ne dañu yaakaar ne weer bu dee ñu jox leen xaalis non c'est des militants convaincus ça c'est ça c'est très important à relever donc ku mel noonu forcément bu nekkee dans de difficultés wala bu jàppee ne man dañ ma bëgg euh, ëpp doole forcément ay militant am nañ jóg maintenant lay wax na ko léegi c'est vrai dispositif bi nga gis tey si biir Dakar Euh, c'est un dispositif impressionnant te xam naa suba sax lay waalo di gën a mm. aay parce que xam naa suba am na gars yu bëri ay force la ci dispositif boobu sax moom mi ngi xamal que ni euh, état du Sénégal dem na jële ji Fatick ñi nga xamante ne dañu nekk en formation toll ci 900 personnes war a ñëw euh, dolleeku ci li nga xamante ne moo nekk fii ci Ndakaaru maanaam ñooy élève gendarme yi ñu leen di former fële ca Fatick mhm. bon ñooñu moom xam naa demain matin boo moytuwul sax fii la ñuy faral si Ndakaaru dem renforcer ji ne mhm. ñooy euh, ñoo fi nekk à Dakar sans compter maintenant le dispositif de la police donc loolu euh, naturellement kenn mënul euh, reprocher à l'État aussi de vouloir mhm. prendre les devants mhm. parce que après tout lu fi xewoon en mars 2021 gis nañ ko gis nañ nu mu demee am na si ñàkk seen bakkan am ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen seen seen seen bien am na si ñoo xam ne mënatuñu woon sax dem di dikk da doon xool par exemple écoles yi ak banque banquier ak pharmacie yi temps yooyu yëpp dañoo tëj parce que ñemeetuñoo ubbi bu ñu bu ñu programmé convocation Ousmane Sonko une semaine après mais ñëpp dañu ay services yu bëri dañoo tëjoon te ba gis nga fii fii li may waxee yow nii euh, mu jox la benn exemple tey suma doom dafa ñëw mu won ma gis seen école ñu bindal ko ne suba les cours arrêteront à 12 heures alors que d'habitude 13 heures lañ doon arrêté. Mm. bus yoo xam ne ñoo doon def les rotation di jële élèves yi suba école yu bëri dañoo ne du ñu seen seen véhicule du ñu fonctionner du ñu du ñu dem jële ay rotation day gis par exemple société bu mel ni certainement Dakar dem beeg suba day mhm. téye ay kaaram alors te ñooñu loolu yëpp day gàllankoor dem beeg dikk bi am ñoo xam ne dañoo waroon liggéey du ñu mën a ñemee liggéey suba di nga gis ñu bëri dañu ne seen employé toog leen seen kër alors que mbir mi c'est assez simple mhm. demain yaakaar naa par A par B en tout cas soobee yàlla Euh, Ousmane Sonko bu dina dem te yaakaaruma ñu téye ko foofu c'est tribunal. c'est une juste c'est une simple audition. nañu xam ne que nañu xam ne que tout simplement que euh, il ne pas été le premier dans cette affaire là mu dem wuyu ji. Mm-hmm. parce que Adji Sarr dem na fa wuyu ji ne kenn teewu ko fa ñibbi na. Mm-hmm. Euh, ay tantam ay euh, comment on appelle borom salon bi dem nañu kii ko ñu entendre ko mu ñibbi kii di borom këram aussi demoon nañu entendre ko ñibbi donc. ñëpp ñoo xam ne dañ leen euh, affaire daf leen concerné ñoom nañ leen woo juge juge d'instruction bi moo xam ne mooy instruire dossier bi moo ko yore dina déglu pàcc bu nekk pour xam fi dëgg féete bu naree yóbbu mbir mi nag un procès boobu nag dina bu dégloo ñëpp nag mu ne ne comme lii ni nga la demee bàyyi leen ñu dem procès donc fu mu nekk nii ku nekk jàpp ne muy euh, ñoo xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko Euh, muy ñoo xam ne ñoo ànd ak euh, ñoo nekk si nguur gi. Mm-hmm. ak ñoo xam ne sax ñooy leader benn euh, yeewu askan wi nga xam ne mm-hmm. ñoom dañu ne d' après leur déclaration mm-hmm. que ñoom suba dinañu dem teewu fële ca tribunal. mais nañ jàpp que ne man dama gis que ne loolu parfois bon man de saam vraiment gisuma njëriñ bi parce que. boo ñëwee juge bi day tëju ak waa ji. moom Ousmane Sonko tontu na ci loolu sax nee na mi ngi xamal waa yeewi askan wi parce que bañ paree seen conférence de dañ ñëw këram. nee na leen soxlawul kenn gunge ko. voilà population bi foofu laay foofu laay bëgg foofu laay dem. parce que euh, juge bi ce n'est pas un procès maanaam bu nekkoon procès yow mën nga xëy sa kër dem dugg biir salle salle bi. mais lii juge bi le juge d'instruction da koy entendre rek audition la moom kenn moo fay nekk peut-être ak ay avocats donc juge bi. certainement sax boo nekkoon si biti di yuuxu du ko dégg parce que day tëj tëj saalam mm. loolu leer na donc il faut pas il faut pas aussi qu'on se trompe que nit ñi se trompe de combat mm. c'est pas un combat de rue maanaam di fight si tali bi nii mm. di di di xeex di reyante si mbedd mi mm-hmm. mooy tax par exemple ñu ne Adji Sarr yaa am dëgg wala Ousmane Sonko yaa am dëgg parce que le juge bu leen fàttali le juge mm-hmm. il est très bien protégé c'est juge bi c'est pas des des des histoires de ay émeutes ñoo mm. koy jaaxal de. Mm-hmm. il est certainement mieux protégé que quiconque donc kooku loolu mënu koo ébranler donc euh, waxuma ne nag bu ko kenn soutenir mais jaarul daal lu lu am solo. Mm-hmm. mooy que moom mu dem joxe sa version des faits devant le juge. Mm-hmm. juge bi tamit. bu yaakaar yaakaaree ne lii war na dem procès mu euh, mu yóbbu leen procès. Mhm. ñu dem atte xam naa bu koy atte sera un procès public bi nga xam ne Sénégal bu nekk comme ni ñu koy defee fële ca Guinée tey bu ñuy juger les événements du vingt euh, du vingt huit septembre en mhm. Guinée. bu la bu neexee juge bu nekk ñëw leen presse internationale bi ñëw leen toog. Mhm. bu la neexee sax ngay jóge Mbour euh, chaque matin ñëw di seetaan si donc je crois que demee daal. il doit pas y avoir péril en la demeure. ma ne warul kenn mu ne la warul tere kenn mu dem liggéeyi c'est vrai nag. et euh, les forces de l'ordre aussi mais te foofu laa bëgg daana la les forces de aussi war nañ def lépp aussi pour éviter toute provocation maanaam mhm. kenn terewul ñu ñëw toog mhm. maanaam euh, devant kër Sonko nga taxawal fa sa char de combat boo demee. en tout cas cité jamono ji ñuy wax sax jamono ji yëpp dañ ko dañ ko dañ ko barricadé. man xam naa si dara parce que boo yooyu laa dëkk. Mhm. donc mais nag provocation mooy. il faut éviter de. d'impressionner les gens wala la provocation gratuite boo xam ne nit ki bëgg a jaar fi nga ne doo fi jaar wala absolument absolument wala léegi yow un leader boo xam ne day xëy di dem nga nekk doo fa jaar mhm. léegi Ousmane Sonko aussi suba bu ko bu ko neexee en tout cas bu ko neexee bu ko naqaree sax mais na déglu rek indication yi yi nga xam ne moom la ko euh, force d'ordre jóge jox bu ko xëy bu xëyee ne ko jaaral fii jaar fii jaar fii na fa jaar rek dem parce que l' essentiel demain c' est qu'il soit entendu mhm. donc jarul ay ñeneen naan non waru fi jaar bu jaaree fi ko agressé bu jaaree feneen ko agressé loolu yëpp ce sera une tension inutile boo xam ne mën na mujjee yow si événement yoo xam ne euh, ñoo fi amoon d' accord oustaz euh, Ousmane wax na lu am solo nee na audition la euh, lu ordinaire la lu simple la bu ko waa leader yeewi askan bu ko kenn gunge mais aussi wax na surtout population yi nga xamante ni dañu ànd ak moom di ay ndaw bu kenn ñëw këram bu kenn parce que moom la ak déglu ji wala ñooy dem tontu ji ay laaj yi nga xamante ni juge bi da koy da leen koy laaj tey ji euh, attitude boobu mën nañ ni attitude bu responsable li nañu xaar ci leader politique exactement loolu moo wax noonu nag bu fekkente ne bu subaa bu fekkente ne bu fekkonte dinañ ci adopté demee ci wàllu woowu jàmm dina am euh, dama jàpp dafay am ñoo xam dañuy porte benn combat boo xam ne ñoom du seen du seen combat dugal ci yëf yi yoo loo xam ne du seen biir parce que benn citoyen boo xam ne euh, yoonu réew moo ko convoqué loolu Euh, tàmbalewul euh, suba te du yem suba. Mhm. kon loolu lu ordinaire la. waaye nag mbir mi li mu rax politique ak li nga xam ne nitu politique la mënatul nekk loo xam ne euh, nit ñi duñ ci jël seen matukaay mhm. na li nga xam ne xewoon na te ngeen xam ko fa mu fa mu mujjee ci bañ koy convoqué muy ne jaar doo jaar fii doo jaar fii. yaakaar naa suba du nekkul nañ dañ ko dañ koy jëli moom mooy dem wuy ji yaakaar na mhm. léegi nag wuy ji façon wuy jiin boobu itam dafay am solo. Mm-hmm. parce que bu ko neexee mu génnee foo xam ne jaar foo xam ne kenn du yëg na sax moom moo jaar foofu. Mm-hmm. Euh, bu ko defee mu dem. yoon wu ko neex nii itam war nañu ko mën a bàyyi mu jaar foofu absolument jarul euh, ñu naan jaar jaar saaxal itinéraire comme que nekkul ko ñuy yóbbu kay mm-hmm. bàyyi leen ko rek na àgg fale rek ci heure bi ñu ko wax bu ko defee bu àggee ñi nga xam ne itam ay ay ay militant lañu wala ay soppe lañu wala ay nit ñuy dem seetaane ji la. Mm-hmm. nañu yem ci cadre boobu rek te bañ a indi yeneen pëccëxoo yoo xam ne wala provocation. bu jógee ci wàllu sécurité bi itam. ci provocation yooyu sax moom mi ngi koy wax nee na am na ay militants yoo xamante ne dañoo xaw a xër boo moytuwul ñoom la force de l'ordre yi nar a nar moo tax muy gën a insister pour que militants yi toog seen kër bañ ko bañ ko bañ ko gunge euh, tribunal bañ ñëw sax buntu këram. maa ngi lay euh, fàtt maa ngi fàttaliku bi Sidi di def manifeste bi ca place de. l'indépendance mm-hmm. bi ñu koy wax di ko wax ne non sécurité bi garanti wu ñu ne ndax dina am wala déet am na ñu ci mën a pëtëxloo. Mhm. pour kii daf leen ne man li ma woote jàmm euh, jàmm laay woote. absolument mu ne leen soccu soccu sax dafa damm. dëgg la. voilà parce que ki ki mbir mi concerne toujours dafay am dafay am solo message bi muy véhiculer mhm. day am solo ci nature mbir ma nu mu mel mhm. mais ñu ngi ci population boo xam ne 17 millions lañu dafa am yoo xam ne dajaloo yoo xam ne bu amee daf ciy am yu rax yu ci rax yoo xam ne Euh, bokk ci. Mhm. moo tax askan wi am na ci lu bari loo ci euh, loo xam ne euh, ñoom lañ leen ko war a ñaan. Mhm. ku nekk xam ne mbir mi dem tribunal wala bañ a dem bañ a dem tribunal du tax juge bi wax li mu war a wax comme li nga ko Georges waxee fa mu koy waxee yow gisu la gisuloo ko. Mhm. te mën na ko influencer ba mu wax leneen loo xam ne war ko wax kon nañu xam ne bu suba bi mbiru yoon la du mbiru. parti bi wala parti bële nañu bàyyi yoon rek mu def ba ba ñuy gis contraire bi nañu bàyyi yoon suba mu def li muy def bu ko defee ginnaaw suba ak ginnaawaati suba dafa am yitt yoo xam ne war nañ ko taxawee ñu bañ a polluer atmosphère bi ba nga xam ne bu ginnaaw suba dañuy xëy ci hôpitaux yi di seeti nit ñi wala di naka yaram wi loolu dama yaakaar ne jaru ko te am na ci benn côté boo xam ne population bi ak militants yeeg sopp yi ñoom la ñoom rek ñoo ci ñoo ko mën a def pour mu war a mën a am euh, dama jàpp ne daal euh, suba euh, bu fekkente ne bu fekkente ne comme message bi Ousmane ko wax nii bu ñu ko respecté moom dina dem suba ñu déglu ko mu tontu mu ñibbiwaat këram te loolu yaakaar naa lool loolu rek moo war a am parce que kenn amul intérêt ci tëll tëll boo xam ne kenn du xam fu mu yem reyante gaañante toujours damay faral di waane Sénégal réew la moo xam ne euh, koo fi koo gaañ yaa koy faj koo fi rey itam yow lañ koy jaale. Mhm. ñun nekkuñ population boo xam ne dañu sorewante boo duggoon ci benn benn kaar bu fees rek. Mhm. bu ngeen waxtaanee rek am relation yu feeñ. ci mbokk génn ci ci ci mbokk bi. Mhm. kon lan mooy intérêt wu. nga fekk jaambur sa mbokk sénégalais nga gaañ ko wala wala mu gaañ la. absolument loolu yaakaar naa warul nekk option suba bi. na nekk lu naturel rek yoon ma woote. nañu wuy ji yoon mhm. euh,

gaaw bu ñu xamee ni dossier bi dafa vide moom sax mi ngi wax ci ay kàddoom parce que nee nañ bii nii xamatuñu lu ñu koy toppee dañuy wut na beneen dossier donc na militant yi def attention maanaam day bañ ñu coller leen motif rek comme ni ñu ko mënee wax donc c'est tout à fait normal et je pense que aussi li euh, ñu ko waxee sànq rek euh, c'est un euh, geste à saluer parce que bu fekkee moom ci boppam mooy ndeyu mbili gi mi ngi oote au calme wax na ñëpp dégg ci réseaux sociaux yi donc ñi nga xamante ni ñooy ñooy ces inconditionnels dañoo war a tamit jëfee li nga xamante ni wax na ko mm-hmm. pas que ñu yaakaar ni bu demee dañ koy tëj dañ koy lii wala laa c'est pas ça dañ koy déglu déglu ko ci dossier ma xamantulaay ma doj ma dog la foofu mm. euh, lan moo tax ba nit ñi commencé di wax ay waxu tëj ak yooyu ce que quelque part du aussi moom moo moom moo moo def moom moo joué sal sal sal sal rôle boobu wala sal sal kii boobu que tey jii boo xoolee yenn quotidiens yi am na ñoo xam ne sax commencé mm-hmm. nañu bind naan est-ce qu'on va le mettre sous mandat de dépôt mais dalay leer ni ñooñu li ñu jàng même bu ñu jàngul sax sax droit am nañu ay notion en droit xam nañu une audition euh, sur le fond du dossier ça veut pas dire que boo demee rek aussitôt dañu lay mettre sous mandat de dépôt moo tax fi mu nekk nii nag ñu véhiculer message boo xamante ni mun na am benn soulevement bu muy indi ci population bi ndax ñi nga xamante ni amuñu accès à cette information la vraie information mën nañu jàpp ni ah suñu waa ji de dañ ko nar a tëj bu yeboo ñëpp jóg taxaw mhm. donc c'est tout à fait normal réaction yooyu di am moom it muy mhm. leen ni euh, du lenn loo xamante ni war na daal euh, mën a yee fitna mhm. te aussi li li muy def c'est moom lañ ci xaar parce que bu fekkee tey jii am na lenn lu ci xew moom lañ koy teg moom moo woote comme la dernière fois ni mu amee woote mars mars lu bëri dañ ko ko doon wax parce que waxoon na benn appel à résistance voilà léegi nag comme bi yoon moom il a été clair dans ses propos avant muy dem wuy wax na ñëpp di dégg que woowul kenn même ñi nekk malgré que dina leen wax bu woowul kenn mais am na ñoo xamante ni ñoom nga woo leen ñàkk leen woo dañuy ñëw on peut les comprendre ni ñu mel xër giñ ci xër la xam naa ni moo tax ñu demee noonu mais il faut ñu dem ci ak seen xel aussi te xam ni euh, fitna waruñu ko ci yee parce que lu ci yee rek dafay dafay répercuté wu ci seen leader ci leader bi nga xamante ni moom la ñu gëm moom la ñu yaakaar uh-huh. donc pour éviter ko représailles yooyu yëpp nañu toog comme ni mu leen ko demandé uh-huh. Euh, confrères je dirais ses camarades ñi nekk ci. Euh, yeewi askan wi uh-huh. ça veut dire que comme ni ko ni ko Georges waxee pas péril en la demeure. bien sûr pas que ñu cherche daal vraiment à indi fi benn instabilité boo xamante ni nuñ ko mënee wax beaucoup de personnes mal intentionnées mën nañu profité ci événement yu mel ni aussi am luñ fi def ñu collé ko nit ki wala ñu collé ko tamit fële de tous les camps des deux camps mën nañu wax ni diw la wala ñee la. Uh-huh. donc li ñuy ñaan rek te yaakaar naa ni ñoom aussi Ousmane Sonko ñi dañ ko déggal. mooy ñëpp garder seen calme mu dem ci jàmm ak salaam ni mu ko waxee ñu déglu ko mu mhm. tontu mhm. bu paree mu wéyal rek li mu doon def muy ay activité mais surtout absolument mhm. euh, Georges tey jii euh, Ousmane Sonko xanaa kenn doon ko toppa di naan dafa nekk nit ku violent nit koo xamante ni dafay woote euh, ay ak finna